mbokk yi asalaamaaleykum alxaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV tey ñu ngi teew ak euh, Youssou Thioune di responsable ci daayiratul Moustarchidina wal Moustarchidaty rek ren mbalam champ de course ba nan la ak nan lañ koy programmé ko fas yéene mooy woo képp koo xam ne kii yaa ngi dégg suñu appel ci turu Serigne Moussa ñu ngi lay woo ci mbalam champ de course ndax liggéey la bu war a jiitu boo xam bi bii li mu soxla ci engagement ak taxawaay moo tax ñuy woo ñëpp kenn fu waay mën a nekk ñu ngi lay woo pour nga ñëw jàpp ci mbalem Hann Course kañ la incha allah le neuf lay doon mooy samedi bi di ñëw mm-hmm. ñu ngi woo ñëpp matériel bu waay am nag te yëg ni mën na ci bale dara mën na toll malik soxla nañ ko ak ku ci jàppale hmm. niñ ko daan defee chaque année noonu lañ ko daan defee Seyd Mouhamadul Moustapha si responsable moral doomi Cheikh na Ahmad Tidiane si Al Maktoum surtout Cheikh Seyd Aboubacar si surtout Cheikh Seyd Hadj Malick boobu moo woote Serigne Youssou Thioune mbir maa ngi noonu képp ku ko dégg na nga xam mooy sa appel alxaji beeg jëm ak man ci de course samedi le 9 octobre 2021 ci Tiwaawon Tiwaawonu fii al yumnu mutayamini a